asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit ci ñuy seytaan dalee nag jàmm ci seen émission l'œil du tigre tey nag dinañ fi waxtaane ci suñu sommaire combat bi nga xam ne dafa génn doxoon ci diggante Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ak Yékini moom l'enfant de bu buñ ci jógee waxtaane combat bi nga xam ni tamit dafa dox ci diggante Garga Mbossé écurie Dóor dooraat ak Fëgala écurie Lansar jeexalee nag combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Ahmed dem Thiaroye sur mer ak Ousa Sow écurie Fass ngeen taaxirlu tuuti ñu ñëw ci ni mu gën a yaatoo. Moustapha Gueye ñu ngi lay nuyu di la ziar te naan la dalal ak jàmm. Zeynep maa ngi lay delloo nuyu di la ziar di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu diaspora bi jox ñëpp asalaamaaleykum. Moustapha xam ni ñëpp fay nañ la sori ñu ngi lay bàyyi nga nuyu sa mbokk yi nga xam ni suum yooyu. Moustapha dañ fi tàmm am rubrique boo xam ne mu ngi tudd jëll bi moom la ñuy ubbee l'œil du tigre chute bi ñu leen indil nag mooy chute bi dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Yékini ñu xool chute bi te dellu si Moustapha Gueye décortiquer ñu ko. Balla mit na Balla jël na ko songoon nañu songoon nañu songoon nañu songoon nañu songoon door na Balla ngi door. Balla ngi door Balla jël na ko Balla jël na Yékini laay laay la laa laay laay la laa songo nañu laay laay la laa daje ñoom ñaar ñu ngay roofoo laay laay la laa lan ci roofoo na ci ba noppi ba noppi ndengeñ ko nag danañ bëre ñoom ñaar waxoon naa la dañuy la laa na ko Balla na ko Yékini bañ wala ña ko Yékini bañ na. Yékini bañ. Yékini ngay sol loxo lay lay la la. bala ngi door. bala bala ngi door. faqat dina fi am de. wala Yékini. ah ah Yékini door na ci gémmiñ gi. lay lay la la. na wàcc. Lamine waxal ko. sama xol baa ngi bëgg a génn bala jël nañu tànk bi. ah Yékini rëpp na. Yékini rëpp na am na xew. Yékini rëpp na am na xew. na am na lu xew. Yékini rëpp na am na lu xew. Yékini rëpp na am na xew. Balla jël ko. Balla jël na ko songoon nañu. Balla jël na ko. songoon nañu. kon nooju mu rëpp. 3 Yékini añ ko. Balla rasu na. Yékini Yékini jaxabal na ko. Yékini jaxabal na ko Balla Gaye daan na Balla Gaye daan na Moustapha xool nañu euh, chute bi nga xam ni dox na ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Yékini euh, ñu bàyyi la nga décortiquer ko. Balla Gaye déplacé wu jëm ci côté droitam fii nag Yékini dafa commencé baral leewtoo bi di wane ne contact de lutte la bëgg Balla mépp ko voilà mépp nag boo gisee ci komba dafay bilimaane mbër ndax mbër su lu mëbee da ngay xalaat ndax daf song wala daf lay dóor di ngeen gis ne Balla da lay mépp suuf dóor la ci kaw. boo gisee Balla yëkkati na crochet gauche di ko dóor Yékini wàcc ñu dajante fii nag bi ñu dajantee nag Balla dafa jël ñaar loxo yi dugal ko ci poxataanu Yékini léegi contact am na ba pare ndengeñ ko bopp Balla Gaye 2 ngeen gis mu weex nii ñu dem voilà le plus important na gars yi mooy mooy lii mooy Balla dafa jël loxo ndajooram sëq ko ci gaño Yékini fa la combat bi commencé nag te fa la combat bi nar a jeexee loxo ndeyjooru Balla gay boobu mu sëq ci loxo ci ngembu ki deexe yóbbu Yékini ko gis na fii Yékini daf ko dëbb sol di ko bal Balla di génn di génn sol ba ndax Yékini bu ko soloon fii tey jii mun na ko empêcher combat ñu dem Balla dellu ginnaaw di dindi di di bañ mu sol ko waaye ba léegi mu ngi saxal loxo ndeyjooram génn loxo càmm ñoom nag di ko di ko perturber di dóor mais xool fi xool crochet Yékini bii ni mu crocheté loxo Balla Gaye 2 bii ba xaw ko pincé def ko genre armalogue pour Balla Gaye bàyyi ngemb li ñu dem ñu def cercle Balla def gis nga Balla bëtt na ko léegi nag di ko indi di ko éprouvé fi lii la ñuy wax nag ci bëre mele mele nag mi ngi am ci ruj bi di ko poussé di ko épreuve de force la fii Balla foo mu téye mu ngi fa téye ba léegi léegi day kii bi sol na ko mais li gën a important la mooy Balla dafa dugal léegi ñaari loxo bi yëpp ci gañe gi ba pare ndengeñ ko xoo yëkkati ni mu signé lii effort bu metti la mais mu ngi ko dëbb ñaari sox loxo ci biir loxo Balla Gaye yëpp ñaari nekk à l'extérieur donc Yékini moo bal Balla Gaye jàpp ci biir donc fii booy xool ñoom ñaar ki ciy gën a ci action bi dafay nekk Yaxya Jóob Yékini ñu dem Yékini génn loxo bi nekkoon ci biir génn ko ci biti di yóotu ngemu Balla Gaye ba tey mais li gën am importance ci combat bi mooy Balla Gaye nanguwul benn yoon Yékini dugal loxoom ci gañoom balaa nga koy embarqué di ko yóbbu fii daf mais Yékini nag ak ak poids boo xamante ne de day varié diggante cent quarante cent trente ak cent quarante kilos balance ko yóbbu ko jafe na gis nga Balla il bouge Balla dafay bouger parce que Yékini kii bëreeg moom da ngay bouger pour bañ mu saisir la Yékini wut jàpp mënul jàpp Yékini ngi doon uppercut ba léegi Balla moo jàpp ba léegi combat bi mu commencé ba léegi ma répété ko encore Yékini jàppagul fenn ñu dem ba tey ñaari mbir ñu ngi réfléchir fi mu nekk nii. Yékini ah voilà Balla fii nag dafa am lu am importance loo xamante ne dafa bokk ci li faciliteel jëlu Balla gay 2 bi nee nañ kurpeñ mbër du ko jël fii Balla gay 2 dafa dóor uppercut boo xamante ne dafa dal yaxe yóbbu nii uppercut bi nag bu ngeen fàttalikoo combat bi mu mujj bëre ak Mohamed Tyson aussi daf ko def mu ni déclic victoire bi parce que coup boo ko jëlee dañ ne 100 pour cent yi nga am ak sa sa sa jëmm noonu dafay wàññeeku di grignoter jëm diggante soixante quinze ak quatre vingt pour cent de des possibilités de des capacités ou possibilités. mais gis nga Yékini malgré jël na ko waaye ma nga kor Balla Gaye ca kaw waa ci jël tànk bi ci suuf nag mu dem important léegi fii booy xoolaat Balla Gaye def koo nooju Yékini bàyyi tànk bàyyi ko tànk ba ndax Yékini bu xaroonu ci tànk ba bu ko Balla noojee non seulement dafay rëpp mais kon dafay julli nooju nag ñu fàttali leen ne mbër mu nooj moo koy def ci gaat ci baatu nooju ci lañ jëlee ci baatu nooj ci lañ jëlee li nga xamante ne mooy nooju ndax ku am say tànk yu x moom la ñu woowee nooju donc boo noojoo dafay facilité bu ñu ko noojoo nag Yékini dafa rëpp fii nag coow li mën na fee bari ci diggante 3 appui ak 4 appui mais Balla Gaye kat saxal na ne kat moom am na 4 appui léegi nag nga xool nag léegi fii dafa am importance Balla Gaye mi ngi nekk ci ñaari appui léegi dafay def nag soo lapin def jargandalu tourné jàkkaarloog adversaire am ñu dem foofu gis nga soo lapin si gi jàkkaarloo Yékini léegi actuellement fii moment bi ni amatul benn moral teel ma aménage foofu non moment bi Yékini di ñëw ci Balla Gaye numéro 2 en tant que sportif sentir naa ne Yékini il n'est plus motivé wala boog sentir na ne moom daanu na Balla Gaye di gi di réclamer victoire am Yékini ñëw di ko dóor si crochet droit ndus crochet droit bi wàcc na ko dërëj mooy action bi ngeen gis nii kon boo ñu dem jàppante am ba tey gisoo Balla Gaye ko 2 saa bu jàppante amee rek dafay dugal loxoom ci ngemb li fii Yékini mi ngi dugal loxoom di yóotu ngemb mais Balla dafa bañ musul nangu mu laal ngembam benn yoon parce que xam na ne problème bi mu waram bi mooy bu Yékini jàppee ngembam Balla Gaye moo dugal ay loxoom Yékini ba léegi jàppul mu ngi nii jël bopp bi ndengañ Balla Gaye di yóotu gañe ko fee mais du ko am parce que Balla Gaye du ko may ñu dem léegi nag Balla Youssou euh, euh, euh, Yékini daf ko bal ñaa loxo aj ko waaye xam nga fii la mu nekk ci bëri bi nag Balla Gaye mënoon naa bañ di bañ ñu bal ko su boobaa jël su boobaa defet mën na ko caa fekk mais Balla dafa accepté bàyyi kook mbagg ya bàyyi kook loxo yi bàyyi kook poam déglu ko ñu dem waaye ba léegi loxo ndijoor baa ca ca ngemb la bi nag Yékini daf ko dugal daf ko bal aj ko dugal ko ci xabal waaye nag li sobee fii ba euh, euh, euh, ki nga xamante ne mooy Balla Gaye numéro 2 doomu Double Less ji dafa sëqi gaño ci loxo droite Yékini ci xabal ko ci côté droite ñu dem Balla bu mu siggee dafa def un pas en arrière dindi li nga xamante ne mooy ci xabal bi ko Yékini def dëgg-dëgg combat beeg chute bi lu koy waral mooy boo xoolee loxo ndajoor di Yékini bu mu defee ci xabal Balla Gaye dénn ci xabal bi dafa wàcc bàyyi ci xabal waaye ne bëri fii moom tamit waaye bàyyi ci xabal bi yóotu tànk ndajooru tànk càmmoñu Balla Gaye di ko plaqué pour dawa dawtal ak moom Balla Gaye nag aussi <laughs> dafay liir comba comprendre na comba yaram moo bëri na foo mu téyee bàyyi ko ba léegi waaye loxo ba nga xamante ne nag moo ko war moo ko war a indil defet moom la yóotu waaye fa mu koy yóotu dafa importance xam nga fan la ko yóotoo Zeynab mu ngi koy yóotoo ca biceps ba bu xëccee daal def rotation rek maanaam wañ yaram bi rek Yékini dafay daal di dem lu tax Yékini dem encore somme bi mooy Balla Gaye 2 pesé ci combat bi lu tolloog 140 kilos mënuñu ko dindi Yékini war a nekk ci diggante moom si 140 kilos wala 135 kilos bu ko Balla Gaye dema ko dóor bu ko Yékini ci xabalee mu génn ci xabal ba xëcc ci gaña ga wiite ko daf fekk Yékini tànk ba mu ca xamale woon te waatul suuf dafa coos rek Balla Gaye embarqué ko coos boobu mu coos Balla Gaye embarqué ko nag benn tànk la taxawee benn tànk boobu mu taxawee nag su jëlee poids moom yaxey yóbbu Yékini jël poids Balla Gaye donc ñaari poids yooyu dafa ñu daal yóbbu rek ci ay deux cent deux cent cinquante kilos deux cent soixante parce que boo multiplier so ñoom ñaar seen poids dafay dugg ci dans les deux cent jël charge boobu ci benn tànkam boole ko nag adversaire bi téye ci gaño gi yóotu loxo ko waroon daan embarqué ko ànd ak moom tëdd ci kawam. donc on peut dire Tafa que la chute était inévitable. ah c'était inévitable la chute. waaw jërëjëfal nañ la le technicien de face ñu ànd xool Leewtoo waaw déet rek ak Balla Gaye doomu Double Less ji le lion de Guédiawaye ñu xool Leewtoo te dellusiwaat. ndax làmb war naa mën a tax jàmm dellu ci Casamance. waaw bien sûr parce que man doomu Casamance la suma yaay moom la suma papa moom la man mënuma génn foofu eh, man Balla Gaye numéro 2 ak sumay staff ñi nga xamante ne ñooy def lépp li nga xamante ne ci ginnaaw Balla Gaye numéro 2 di ko xelal ni mu war a doxee Casamance di ko xelal ci li nga xamante ne t-shirt yi muy sol di wane jàmm ji nga xamante ne moom moo nekk Sénégal rawatina Casamance.